seen mbokk Omar Karaw Niass di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di wax ci sama vidéo yi nga xam ne nii maa ngi koy def di ko jagleel euh, kooku ñuy wax Iba Der Thiam bind ci maam El Hadj Abdoulaye loo xam ne du nakk sa du noonu euh, moom bindam du tey la ko tàmbali bii mooy ñetteelu yoon kon du njuumte ñaareel bi ci topp mooy maslaa bi nga xam ne moom lañuy def ci maslaa yi dafa war a jeex waxuma nag ci turu benn xalifa wala benn imam walla benn hadara maa ngi wax en tant que sëti Alaaji Abdoulaye ñu wax ci suma maam Alaaji Abdoulaye Niass wax joo xam ne du noonu ma di ci wax waaye sama responsabilité la man du responsabilité keneen Iba Der Thiam li mu bind wérut waaye lu gën a ñaaw loolu moo di bii du benn yoon du ñaar yoon te soskat la te dafa sosal maam alaaji li ma ciy wax nag mooy déglu naa waxtaan wi bu baax waaye li ma ci gën a ràññeeku moo di Iba Der bu doon ñetti fan sax martabaab El Hadj Abdoulaye war na koo dal mu dugg ci kaso gi euh, Iba Der dañ koo war a plante dañ ko war a plante yóbbu ko ci yoon mu indi lay ki ko bindloo ak fan la jëlee référence yi mu bind ak fu mu ko wéralee maa ngi dégg ci waxkat yi ñu ne mi ngi jëlee mi ngi laajte ku ñuy wax Iran Ndaw mooy kooku doon foon góor jigéen bi ak ku ñuy wax Abdou Sàmm Mbay xawma di ab géwél ngan bax baal ma sax ci wax ji waaye dara jaay Alaaji Abdoulaye Niass ak maqaamam bi Abdoulaye Niass paase na ñu juddu bërki démb di ci wax Alaaji Abdoulaye buñ bëggee xam taarixam am na fum cosaanoo te référence bi moo di Cheikh Ibrahima Niass di doomam wax na ne sama baay ci baayam la jànge baayam ci baayam la jàngee kooku du taalibe alaaji Malick te lii may wax ni waxi maam imaam Seydi alaaji Malick radiyallaahu anhu moo waxal boppam ne alaaji laa ñas baay laa ko jàppee def ko muy sama baay ndax moom moo jamante jamonante woon ak sama baay Ousmane si ànd moom jonjoog moom jëflanteeg moom kooku kon du taalibe alaaji malik kooku bàyyi alaaji malik alaaji malik lii du samay wax Seydi alaaji Malick moo ko wax ne alaaji Abdoulaye Niass baayam la ndax moo gis baayam jamonante woon ak baayam li nga xam ne nag moo ci nekk mooy diggante kër alaaji Abdoulaye Niass ak kër Seydi alaaji Malick ñoom ñaar ñooñu doon nañ ko rafetal li may wax dafa leer ñoom ñaar ñooñu doon nañ ko yéwénal doon nañ jariñante ci toolab yàlla bi nga xam ne mooy toolab lislaam bi ñu walbatiku bokk tariqa tijaan walbatiku joxante ay mbir yu bari ñaari cër yi nga xam ne moom laa ci wax ci gàttal mooy alaaji malik radiallahu anhu dimbali na alaaji Abdoulaye Niass ci lax googu mu dëkk muy ñaseen waaye tariqa tijaan Alaaji Abdoulaye Niass moo ko jëlee faas ñëw indil ko ko am na nag ci kër gi ku wax ne Alaaji lay Niass bi mu demee faas dañ na ko dëppal la ngay uti ma nga tiwaawoon loolu amut wax ju ràpp la wax ju amut la li ma bëgg ñu xam ko mooy maslaa bi dafa jeex wax ju bari ji ñuy teg ci Alaaji Abdoulaye Niass dafa war a doy te Iba Der mii lii mu wax ak lii mu bind bam ko bam ko sosee yàgg na dafay soor a feeñ livre bii ñu bind ñi ngi naan balaa génn loolu ay wax la ay masla la livre bi génn na gàcce la ci nag ñu defaat beneen livre ñu ne livre original bi mooy bu njëkk bi njëkk a mool bi ci topp waa ñeseen ñoo mer moo tax ñu def ko loolu lay indi Idrissa Iba Der na dem ci kaso gi nañ ko jaarle fi ñuy jaarle nit ñi yow monsieur le président Macky Sall maa ngi lay waxee man Omar Karaw Niass am na loo xam ne sa responsabilité la parce que yaa ko santaane te sëriñ daara bi jàngale ci daaraam ci taalibi bi nga xam ne bindiloo na ko alluwaam su ca yàqee baat dana ko xam su ca dugalee lu bokk ci alquran dana ko xam te dana ko dindi kon yërngal livre bi wala ñu yéral la ko ak loo gàtt-gàtt xam-xam danañ la liiral livre bi li ci nekk te yow Kaolack ak funjuñ nga yoro xam nga ne El Hadj Abdoulaye Niass xajut ci gannaaw kenn te xamal nga sa bopp ne ku la fëgg digg guddi laaj la ne la El malik Malick sëriñ yi El Hadj la xam nga ne du dëgg te wérut kon am nga ci responsable ndax yow yaay président Sénégal yaa yore attali weer yële ci gannaaw benn journaliste bu bindoon ci yow min ci kaso gi ba léegi kenn jëllu ko intervention ci yow la bind bind lu duxul noonu ñu ne ràpp ci kaso gi kii nag mooy kenn Sénégal kenu àddina bi kenu Afrique mooy kan mooy jàmbar ji Alaaji Abdoulaye Niass Alaaji Abdoulaye Niass mooy xalifa Seexu Tijaan loolu Seydi Alaaji malik ooyee na ko ko ooyeete ko ko ooyee ko baayam am na ko wax ci benn lettre ci benn ojo di wax ne Alaaji Malick Alaaji Abdoulaye Niass moo ko tuddee Maodo Gàlle dëgg la kay moo ko tuddee Maodo Gàlle waaye ba mu koy tuddee Maodo Gàlle lam coo wax mooy dama foogoon ne xale nga waaye duuloo xale magam mag nga mooy Maodo Gàlle Alaaji Abdoulaye Niass moo ko tuddee ndax baayam la cëral leen boppam ñoom ñaar di benn jëmm du ñaari jëmm duñ ñaari jëmm lii àddina yépp xam nañu ko kon nag taarix buñ koy bind war nañ koo jël ci sosu ci lu leer Sénégal nag ci tàkk la jëm buñ defarul lii buñ toppul lii ba mu sës ci tàkk la jëm maa ngi déglu sama baay Ahmed Niass Khalifa Ahmed Khalifa ñas maa ngi koy ziare di ko ndokkeel li mu wax man bu ma nekkoon senegal ci gannaawam laay nekk ba baa ñuy demee ca code ba ba baa ñuy demee ci avocat ba Iba Der nañ ko pelant yóbbu ko ci yoon amul kenn ku ko mën a défendre ba duñ ko yóbbu ci yoon du président du maami président du keneen nañ ko yóbbu ci yoon lii mooy li nga xam ne moo nekk ci yëf yi nañ ko yóbbu ci yoon teg livre bi mu dind ko te ñu génnee ko ci sos parce que sos kan la wax na lu amut du njuumte lii du benn yoon du ñaar yoon Iba Der Thiam di ko def te wax ji it am na ñu koy waxtaanee dañoo ñemuta wax di ko génne ci biti waaye def nañ seeni ojo wax ko mu génn àddina bi yëpp di ko leerlu Mame El na doy na doy ci ñuy wax ci maam El Hadj lu waxut xalimba gi gën a tuuti ci maam El Hadj Abdoulaye bi gën a tuuti bi gën ñàkk solo ci maam El Hadj Abdoulaye dana fudd ndigam te maa wax ne dana fudd ndigam dana fudd ndigam fudd lépp lum amee ak lépp lum oom loo maam El Hadj dana fudd ndigam te lu wér laa la wax waaye nag nañ jaar ci fi mbaxana doxe benn nañ ko yóbbu ci tribunal bi def ko plainte waxi ba Papa Ahmed Niass Khalifa Niass wax ji mu wax d'accord naa ci tey te moom ànd naa moom ci waxam ji ndax wax ju rafet la lii rek moo koy sosal xam nga li gën a doy waar nag mooy maslaa gi ñu ciy maslaa ne léegi danañ dindi lettre bi lam wax ci El Hadj Abdoulaye Niass danañ ko dindi bàyyi liifar bi mu continuer liifar bi agsi na Amérique parce que ambassades yi lañ wax agsi na Saoudia ci ambassades yi lañ wax kon àddina bi yëpp jot nañ ci liifar bi àddina yëpp jot nañ ci waaye nañ jot ci dumaay Iba Der Thiam nañ ko plainte téye ko ci kaso gi boole kook ay hunka ki sindax ak i jaan ñu matt ko ci kaso gi ba mu xam ne marta ba ki mu tooñ ki mu tooñ tooñ ko kooku yàlla daf ko war a mbugal ci loolu waxuma mbugale àllaaxira de des na yowmal qiyaam nag waaye mbi mbugalam àddina mii nañ ko dugal ci kaso gi ba mu xam ne dafa tooñ kilifa dafa tooñ walli yàlla man lii moo ci sumay wax amul kenn ku ko mën a defar dafa juum ak mystique laag juum du nekk benn yoon du nekk ñaar yoon lii dafa yàgg ci Iba Der Thiam soskat la comme dafa sos nañ ko dugal ci yoon Sénégal nag comme bu ñu waxee ci président bi wala bu ñu waxee ci Omar Karaw ñas mi sax ñu jóbbu ko ci yoon benn góor jigéen lañ fi wax góor jigéen nga rek ñu yóbbu ko ci yoon tribunal di ko atte Iba Der Thiam tooñ ki ponku lislaam la laal Iba Der Thiam ponku lislaam la laal ki nga xam ne moo yore raayu lislaam bi moom la laal ci àddina bi lépp kooku dañ ko war a yóbbu ci yoon amul nag lu ñuy mën di wax ba kenn di wax maa ngi wax nag ci sama kàddu ci sëti Alaaji Abdoulaye waxuma ci benn xadara sama responsabilité laa jël di ko wax Iba Der Thiam soskat la te dafa sosal Alaaji Abdoulaye dafa fenal Alaaji Abdoulaye dañ koo war a yóbbu ci yoon dañ ko war a yóbbu ci yoon senegal am na yoon nañ ko yóbbu ci yoon ku dul Iba Der Thiam ku dul Der Thiam bu sosalee Alaaji Abdoulaye dañ ko war a yóbbu ci yoon sàkkantuma Iba ci am nga xam ne mag la moo xam ne la muy wax xamu ko sos ko ba pare di ut lay layam bi du sukkandiku ci lenn lu may naan Iran ndaw ak nangam ñooñu ñooy ñan Alaaji Abdoulaye Niass boo bëggee xam ci moom am foo ko war a xamee Alaaji Abdoulaye Niass buñ bëggee xam ci moom am na fuñ ko xamee ab njaboot nag boo ci bokkut mënoo cee wax li ngay wax wérut te xam nga ne wérut te du yem fii nag du yem fii da koo tàmbali waaye ba bàmmeel dan la topp ba ci sa bàmmeel man maa la ko wax dan la topp ba sa bàmmeel te yow ku repp nga ak lu sa fan wi gudd gudd ku repp nga fan wu gudd mooy wax njub wax lu wér wax lu jub wax lu wér dangaa tooñ te danañ ko jëflanteeg yow ci zahir ak baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi jéglu ñëpp di leen siyaare seen mbokk seen xarit Omar Karaw Niass asalaamaaleykum wa rahmatulah.